dafay daal waaw. nga koy gunge dem ba ay famille am si yow confiance yaayam dénk la ko loolu nan la demee woon ndax nit ñu ñëw jël la ne la may naa la ko yow yaa tax ñu bàyyi ko sax làmbam lu gën ëpp ñoo amaat courage yow la woon mais loolu nan la demee woon. waaw waaw waaw yaayam bi keroog bi ma ñëwee di ko di ko di ko jël si daf na ma sax ñun dañuy ñu ngi ñu ngi waxtaan ak ay nijaayam pour mu bàyyi bëri parce que lii bëre du du du kiyam du du moom ilmaanu jàkk la wala bu jàngale daara ma ne ko waaw loolu def léegi nag yenn saa yàlla day def di lay dina di nga di nga nekk dara yàlla yóbbu la ci leneen loo xam ne tey jii moom rek moo xam li mu ci nar waaw mais xam naa ne daal parce que bu ñu nekkee champion dinañ la yóbbu màkk mu ne ah di ma yóbbu màkk ma ne ko loolu ko dinañ leen yóbbu màkk moo tax keroog ba muy dem màkk man la oo ne ma yaa ma waxoon ne Gris Bordeaux dina ma yóbbu màkk kon yóbbu na ma màkk kon nag jërëjëf jërëjëf mais ci biir loolu li nga xam ne daal moo ci moo ci moo moo ci nekk mooy bi ñu bi bi ñuy bi ñuy bi ñuy kiyee bi ñu bi ñu bi ñuy làngee ci waa këram jox ma ko boobu boobu dafa fekk nag ci biir loolu giri suba ak ngoon yëpp laa ko yóbbu entraînement le matin maa ay quatre du matin la ñuy jóg di ma dugg sama oto moom mu topp oto bi di daw ba yoof su ñëwee ñëw tëdd nelaw su nelawee euh, onze heures demi ñu yee ko mu ndékki dem salle de boxe salle bi maa ngi doon fay euh, euh, Idrissa Jonn cinq mille francs par jour. te yow yaa ko doon fay salle. waaw man maa ko doon fay man maa ko doon fay waaw man maa ko doon fay waaw. pour mu mën a box mën a xeex moo tax gis nga ni mu mënee xeex ni mu ni mu ni mu ni mu mënee xeex kon donc ci biir loolu wóolu wóolu boobu nag famille woom wóolu mu woon moo tax mu téye woon ko noonu waaw. Mhm. amoon na sax benn temps boo xamante ni tawat daboot na ko ñu gis ni tawat boobu noonu ñu gis ni yaa ko assisté ba tey mais loolu nan la demee woon. waaw waaw waaw boobu mu ngi pare pare pare ak. Euh, Xaadim euh, Ndiaye numéro 2 dañ ko ñoo jox avance bi rek mu girib bi ñu giribee ñu yóbbu ko Gaspard Camara man ak magam bu jigéen ak yaayam maa fa nekkoon si ay préparatif yoo xam ne <laughs> mu ngoog daal loolu daal munu munu munu ma ko wax waaye si biir loolu daal. boobu assisté naa ko daal ba ñu génn hôpital bi commencé entennement ba mu bëree Xaadim Njaay daan ko. mais parce que gars déedéet boobu du boo woon du mystique boobu dafa dafa dafa dafa dafa feebaroon rek dafa entraîné woon ba ba sonn daal waaw ci biir loolu daal loolu la maa ko leen garab piqûre yi maa ko jëndi lépp lal bi maa ko doon lal ba balaa may dem daal guddi une deux heures du matin laa daan ñibbi sept heures ma ñëwaat waaw. Mhm. sa relation ak Gris nekkoon na loo xamante ni xam nga danga na yàgg Tapha Gueye amoon ngeen sax complicité mais kii tamit nga jàppewaat ko kon doom mhm. ngànd ak Gris ëmb ko yiir ko muy bëre di bëre ba jégg daali euh, ba mu jugee ci ki nga xam te ne mooy Khadim Ndiaye mais yan combat nga ko gën a assisté avant muy bëre ki nga xam te ne moom mooy Bombardier combat yoo xam te ne tamit combat yu métti la. waaw bi mu bëri Xaadim Ndiaye après bëri naag Antoine Baaxum bëri naag euh, hmm, kii nu mu de Guiers numéro un bëri naag euh, Tyson Junior ñun ñëpp bëri naag ñoom waaw. Mm-hmm. gañe waaw mu mu mu daan leen boobu bi man bi ma koy bi ma koy bi ma koy bi ma bàyyi foog naa ne su amee daal mm-hmm. benn benn benn defet la am. boo xam ne dafa dóor kii nu mu tuuti ki ñu doon wax dina ñam kii kii waay ki ñu doon wax dina ñam kooku kooku lañu lañu la ñu songoo al bi àtte leen kooku dóor ko mu fayu kooku daanu ah ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu àtte ko ñàkk àtte ko ñàkkal waaw loolu la kooku kooku rek boobu moom moom moo daan Gris Bordeaux par pénalité waaw bi ma koy bàyyi moom kenn daanu ko waaw. combat ak Bombardier nan ngeen fexe ba décroché ko ak nan ngeen fexe ba combat bi ak tamit li ci am yëpp am ci ndax Bombardier temps yooyu koo ko jox da koy sóoraale mais tey ngeen jël ko ba pare ak gëm combat boobu nan ngeen fexe ba décroché ko. waaw bi lañ ko préparé mooy man dama xam Gris xam naa ko mu mën ak ku ko mën. waaye dama ko doon wax ne ko entraîneel muy entraîner box di entraîner physique donc daawul bàyyi benn yoon parce que boobu nee naa Bombardier la ñu war a daan parce que daan na Moustapha Gueye kon Gris war na ko daan ci biir loolu nag ñuy dem mais sama dox ak wax ak dem ak ñëw yëpp ci Bombardier laa ko teg. laa la la la laa ko def su ñëwee ñu jëndal ko yàpp mu lekk ñoo yore ndékkeem ñoo yore añam ñoo yore reeram man ak ku ñuy wax Ousmane Fall yëpp régime alimentaire am dañu amoon ku ñuy wax euh, benn benn entraîneur u Marseille boobu moo ñu moo ñu joxoon kii am nu mu tëti euh, kii ñu war li muy war a lekk daal gëstu tikam boobu moom moo ñu ko jox ñu koy jël toog nañ lu ma deux mois ci loolu rek loolu rek lay nekk quatre laa ko jël si su ñëwee ngoon si ma yóbbu ko mu def xam nga kon donc ci biir loolu si loolu lañ nag préparé woo ba ñëw Gaston dafa ñëw rek ñëw ne ma Bombardier laa leen jox ma ne ko indi xaalis bi mu ne noonu nii nii nii nii nii ñu nekkoon nañ bàyyi mu ne ma loo may laaj ma ne ko cent million kañ nga may jox waaw ma ne ko cent millions nga may jox mu mu ne ah? kon yow da ngay lig lig ni fay ñu loolu waaw ah, cinquante millions cinquante millions kii avance ah, cinquante millions avance cachet bu gënoon a moom. moom dootul bëreeti la cachet boobu. cinquante millions. cinquante ah cent millions. cent millions cent mille ah ah astafurlah léegi laa mujj yàqu na di ah laa mujj yàqu léegi waaw tey ah, ni mu ko gisee fekk dañu amoon benn xarit boo xam ne moom banquier la woon dañ jël xaalis bi ne ko mu ubbil ko compte sama xarit la woon mu ubbil ko compte léegi li li mu doon li mu doon li doon jox yaayam mu jox ko ko li mu doon jënd seen kër mu jënd mu jënd ko seen kër waaw li ci des mu denc ko li ñu ci waroon a yóbbu tam. ci biir loolu sëriñ seek yooyu ñu ñu xool ñi ñi bokk ku nekk ñu distribuer ku nekk ñu jox la léegi li si des nag ñu uti ñu uti ko parce que am na ñeneen ñun doon dimbale yoo xam ne euh, ci lim ñu joxoon je crois que loolu yëpp 4 million la woon nga jox mbay gi 1 million jox si tabaan un million jox sëriñ boobu ma lay wax noonu un million mu des mu des mu des 2 millions yi 2 millions yi nag mu yóbbu ko diggante Ngor Yoof Wakaam tubaab Jalaaw <laughs> ba pare nag soo ko nag am nag beneen xaalis boo xam ne ñoom aju Juuf ak ñoom Isiar Dia ñoom ñëpp ñoo ma ko doon may waaw ma ma dajale ko nag ba ma 6 millions de francs ak si laa demee nag euh, tukki dem ci euh, Guinée Bissau Guinée Sékou Touré dem ci Côte d'Ivoire dem ci Maroc Ah. waaw loolu yëpp loolu yëpp si si si si si laa ko defee. mais yooyu yëpp am na moom am na loo fa jànkoonteel père dëkk yooyu yëpp nga jëm est-ce que mën nga ñoo expliquer benn anecdote boo xamante ni euh, jànkoonteel nga ko ci côté yooyu. jànkoonteel naa ko ci mooy bi may dem euh, dëkk bu ñuy wax Iliao euh, maa ngi jóge njël. première note rek ñu lañ jóg maak ñi ma àndal ñun ñaar ñun ñett yi àndoon yëpp ñun ñëpp Moussa lañ tudd. Moussa lañ tudd kenn ki sama turandoo la kenn ki sama xarit la ñun ñett mais dañ doon wax soose nii ñu dem dugg oto ba fu ñuy wàcc ñu wàcc dox ci àll bi dàll bi àll bi dox ci àll bi àll bi rek jékki-jékki rek gis affaire yi nag euh, euh, euh, kii yi nu waa euh, kii kii militaires yi rek wóor ñu ay ay ay kii nu ay rebel ay rebel ay rebel ah, ci àll bi ñu taxaw bi ñu taxawee ñu laaj ñu loo leen di làkk ba ne leen ñun wolof ñu ne loo leen di uti mais dañuy dem seeti benn sëriñ bu ñuy wax maamadi ñu ne est xam ngeen fi ngeen nekk nii ma ne ko ah ñun xamuñu si dara ndeke am na ci koo xam ne chef bi moom Fass Baraak la dëkkoon Fass Baraak mooy fi ñoom mbëggee dëkkoon foofu la dëkkoon militaire la woon mais dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko simmi mu dem en nekk fa rebelle ñu ñëw mu ne ma eh xool mu baax xàmmee nga ma ma di ko xool di ko xool di ko xool di ko xàmme mu ne ma ana ana ana paa ñing ma ne ko paa ñing ma ne ko mu nga fa mun ne ma ana meer Jóob sama yaay ma ne ko mun nga fa ma ne xam ne nag kii xam na ma ñu jékki-jékki nañu ñu ñu ñu ñu avancé ñoom ñu ñu guruboo nii wër ñu mu commencé nag wax olof wax olof mu ne ma xam la woon baaji ma ne ko xam kañ xamoon naa ko militaire la woon mu ngi dëkkoon kër wetu saam xar ma mu ne ma man la maa ngi nii ma xool ko rek mu indil mu indil ma visage bi ma ne ko ñu songoo noonu songoo songoo mu ne ma fooy dem ma wax ko fi ma koy dem mu ne ma nañ dem ma yóbbu la parce que su ma la yóbbul su leen su leen su beneen convoi bi euh, euh, gisee mun naa am ñu ñu faagal leen ñoom ñoo laa àndal ñuy dox ba minuit. ba combat contre contre euh, Gris Bordeaux Bombardier. Bombardier waaw ñu dox ba agsi ci kër gi mu ñu ñu kër gaa ngi ni fekk ñoom tam kooku ki ma doon seet ñoom daf leen di defal ay téere ay seen sëriñ leen nga xam ne kon kon kon nu mu tëti gars yi duñ leen mën a jàpp ci ci forêt beeg yooyu duñ leen duñ leen kii daal ñu ñëw ma wax ak sëriñ bi ba pare mu jox ma néeg mais ñoom ñoo ma doon garder ci néeg bi su ñuy tëdd di nelaw nii waaye am ñaar ñoo xam ne ñu ngi ci bunt bi am ñaar ñoo xam ne ñu ngi ci bunt bële su ma yeewoo ma jënd béy ñu lekk ba semaine bi nga xam ne moom laa fa def ñoo ànd ak man ba fiñ ma fiñ ma téye woon lañ ma jox loxo rek après na ma waaw waaw kon donc ci biir loolu loolu nekk na loo xam ne daal lu émouvant daal loolu loolu laa daj ci combat ci combat Gris boobu boobu ci li nga xam ne mooy anecdote bi nga xam ne moom nga ma laaj waaw ah. euh, ban combat tamit euh, nga doon dem gis di engagé leen benn maire boo xamante ne xamuñu fu mu loolu ban kii la woon waaw boobu Moussa Gueye Alioune Diouf la waaw boobu dama demoon sama benn xarit bu ñuy wax Karamo Sadio Karamo Sadio mbër la woon fii la daan bëri ci làmb joolaa yi ma dem dëkkam ñëw ñu toog nii rek ñu gis benn jigéen yuy ñëw yore euh, bant ak di di di di di di kii di ñëw bi ñu ñëwee mu nuyoo ñu fay ko mu ne sama xarit bi ki kii affaire u bëree ko fi indi ma ko lu mu wax kara moom mu ne ma nee na affaire bëri la fi indi ma ne ko waaw mu ne ma léegi may ma guro fekk indi woon naa euh, guro bu bari ma jënd benn taxañ ñëw jox ko mu ne ma mu wax euh, sama xarit bi da ko neexal ndax dina ma mën a fekk ci ginnaaw dex gi mu wax ma ko ma ne ko waaw mun naa ko mu ne ma ragalloo ma ne ko de ragaluma mu jël benn buum takkal ma ko moom mu dem bi mu demee sa suba sa ñu yeewu suba teel abba gaal dem ñu demee dañu dañu dañu dem tuuti rek nga gis mu mel ni jasit euh, yi dañu wër gaal gi di dugg di génn di dugg di génn di dugg di génn ànd ak ñun ànd ak ñun ànd ak ñun ba nga xam ne teeru baa ngi nii rek gisatuñ leen ñu xëcc euh, kii bi euh, gaal gi costé ko toog fi mu ñu fi mu xam ne foofu lañu waxoon ne foofu la ñuy jox la rendez-vous lañ toog nii ba jékki-jékki rek gis mu ne tëll suñu kanam bi mu ñëwee mun nañu ñu ñëw ngeen ma ne waaw mun na ma fi ngeen di bëree de ñetti ñetti ñetti turbine la boobu Iba boobu Iba Mar Diop la mu na ñetti turbine la ñetti toogukaay la mu ne ñetti toogukaay. may xalaat bang yooyu ba si ak ma ne ah ñetti turbine la mu ne waaw mu ne soo leen demee turbine bi nekk seen càmmoñ foofu ngeen di toog ruq boobu ngeen di toog ñu dem ci biir loolu nag mu mu mu mu jox ñu tam joxaat na beneen fas boo xam ne moon ngeer daf koy daf koy takk ci ah, takk ci ndiggam jox ma beneen boo xam ne daf koy takk ci loxo bi jox ma yu bari daal mais mu ne ma sooy dem ba ba fi ngeen di jaar nii pour dem Dakar da ngay sotti foofu soow pour ma mën a ñëw dinaa ñëw su ma ñëwee damay nekk téere bu xonq ci loxo càmmuñam loxo càmmuñam ah nga xam ne di nga xam ne ñëw naa su ñu demee bay bëri nag da ngay génn koo tasel rek ban la lu ma la jox ne la def ko nii rek def ko noonu. bi ñëwee ñu def loolu dem toog ci ruq ba fële ñëw bi bi loolu amee ñu def saafara yëpp te kii rek ma ne ko kii pour bëreegum de xaar ba ma ñëw ma génn génn ci biti rek boobu ñëpp a ngi ci bi bi bi bi stade bi gisuma kenn ma jékki-jékki gis benn jigéen joo xam ne rafet gi mu rafet mënuma la ko wax rek mu jox ma benn nen naa ko dóor naa ko dóor ci suuf ma ma téye ko rek dem bi may dem rek ma jékki-jékki rek gis ci loxo càmmoñu kii bi ah, waaw rek gis gis gis téere bi mu ne fang waaw kañ mu ne fang keroog dama dama dama dama jël jël paaka paaka nii ku ma laal ma jam la ku ma laal ma jam la léegi ñëw ñu dem bay bay bay bay sëgg rek ma toj affaire bi. toj nen bi na ko gaawal gaaw maa ngi lay xaar fii daan ko te ñëw fi ma taxaw foofu la ko Moustapha Gueye foofu la ko Moustapha Moustapha Gueye daanee bi ma dawee ñëw nag si Moustapha Gueye ba xool laal laal kii nu mu tëddee yaram bi si xool téere bi rek kër bi na ma fees dem dem na. <laughs> benn parenthèse <laughs> ñu woon ci Gris Bordeaux léegi ah, nga gunge ko ba mu dégg daale combat ak Bombardier wax nga ko cent million la ko lig ko laay fayoon te Bombardier nekkoon na instant boobu ci digg na ndam ngeen décroché combat boobu préparation yi nga jànkonteel ci lu nekk dem ba benn instant sax am na leen lu ci mënoon xaj yàlla suturaal la après combat bi ah, bëre bi nag ndax combat boobu sax nag bañ paree bas per Moussa si la commencé am ay problème ba gars yi sax xaw ma dañ koo us mais Père après di ci biir combat boobu yëpp waaw bi ñëwee ah ah dañu nga ñu nga jaar ca buntu virage enfant tëb wàcc keroog lañ doon keroog bi ñu tu euh, wàccee ñu jaar ci ci ci barrières yi tëb wàcc keroog la laa jiitu ñuy march ñuy maaj dañ doon maaj militaire mel ni militaire di maaj waaw boobu xamoon xamoon boobu xamoon xamoon naa ko lool lool lool lool lool. loo jëndee un million et quelque bi lool lool lool lool lool kañ. ci biir lool rek bi ñu ñëwee ñu toog fi ñu war a toog ma ne Gris mu ne ma ma ne ko tey yow yaa mën waaye respectel waa ji xool ko yaramam bi yëpp tey pëpp la. pëpp mooy maanaam. cox cox cox cox bu bu bu amul dara saako bu amul dara am cox rek xam nga day woyof. boobu na sama mag waaw léegi ci biir loolu moo wax ak moom ma wax ak moom ne ko tey jii yow yaa mën indi sa loxo mu indi loxo ma jox ko sama loxo mu dóor dóor ñu dóor ñu loxo ci biir loolu ñu léewtoo léewtoo léewtoo ngir dóor ko ñaari coup Bombardier di fayu ngir esquive ko mu romb. daanu ci ginaaw ginnaaw ginnaaw Gris Bordeaux gars yi sax ñu ngi wax ne Gris bëriwul waaw effectivement bëriwul loolu dafa yomb trop trop trop trop trop trop ba nga xam ne xamoon nañ ne loolu loolu loolu loolu gàllaaj la daal. kon combat bi combat la woon quoi. combat mystique la woon loolu. Gris la ko ga la ko demee. daan na ko parce que daan rek la wax ah. daan rek moom moom uti na sëriñ ñun uti nañ sëriñ mais xamoon nañ ñun fi ñu jaar. ñun ke dañu duñu neex a duñu neex a daan daal fi neex a daan waaw. mais butéelu saafara bi nga jëndoon un million bi ni mu toll dafa ndaw wala. parce que ci biir loolu butéel bi biñ ma ko joxee dañu wax ne naa ko gas suul ko ba ñuy dem làmba ja demuñu làmba ja bu ma ko génnee ba ñuy dem làmba ja nag si ko génnee ne butéel bi dañ ko ut dañ ko utoon euh, mbuus. boo xam ne bu weex bu ñu ñaw waaw ñaw ko mu am takkukaay waaw boobu boobu boobu saa yu ñu ko waaj wa joxee rek saa yu ñu ko ak combat bu ñu mënti am su su si bokkee suñu ko joxee rek boobu la ñuy gañ dañuy gañee waaw. mais li nga doon jànkuwanteel xam na ko. ah ñun li li ñuy jànkuwanteel mbër yëpp xamuñu ko xamuñu ko li ma doon jànkuwanteel que gars yi xamuñu ko nu ko. déedéet du ma leen wax dara damay xam ne sama bëgg-bëgg la faas la euh, jeex na waaw. nga gunge ko ba mu dégg daali daan Bombardier seen problème commencé juddu foofu noonu ñu eka ah, foofu sax da gi amuñu problème amuñu problème parce que dafay am loo xam ne nit su demee dema dema dema dem dem dem dem dem ba sës ah nit su liggéeyee liggéeyee liggéey la bërë war a retraité dafay dafay dafay bàyyi. mais avant muy nag père ñu ngi la doon jéem a parce que kooku léegi mi ngi am ay ay millions gisatoo sa bopp ci Gris Bordeaux. waaw dëgg la loolu yëpp loolu yëpp loolu yëpp mun naa ko wax waaye mun naa ko bañ a wax. parce que parce que ci biir loolu euh, am na ci loo xam ne euh, euh, kenn kenn kenn du ko wax daal kenn kenn munu munu ma munu ma wax parce que Gris sama doom la te passé nañ moment yu yu neex a neex neex a neex yoo xam ne. loolu jarul jarul ma koy ma koy ma koy ma koy sulle si mais ci biir loolu rek dem naa ba ci biir rek ma xam ne gaa yaag may gaa yaag may xeex ak gaa yaag may contre ak yooyu ma bàyyi leen affaire bi ñëw toog jeex na waaw. père dañ doon dégg père Abdou Guèye moom mu ne euh, Moussa Gningue moo nekk kenn koo xam ni du jaay mbër te day topp mbër ba pare moom moo nekkoon patron Gris Bordeaux te loolu nit ñi xam nañ ci dara per ndax Abdou Guèye moom moo ko wax secretaire général bu écurie waaw loolu la loolu dëgg la parce que gars yëpp man maa doon seen patron nag ma ne gars yëpp. gaa gaa yëpp maa doon seen patron mais li ñuy wax rek nit day jékki-jékki am ñu la bëgg am ñu la bañ te dafay am yoo xam ne rek xam nga jaratul jaratul jaratul jara jaratul wax daal jaratul wax comme que loolu jeex na rek ci jàmm ah ah léegi naa sant yàlla rek ba mu bari nga xam ne rek yàlla suturaal na ma daal waaw. ci fi mu nekk nii. Balla Gaye waaw moo ci ëpp mystique. Balla Gaye mm-hmm. laay laay la bay Gaye euh, euh, euh, xarfu foofu yi muy génne yi muy indi sax moom la moom la moom la moom la bërëkat xamul moom la bërëkat xamul parce que dina ud dina indi ay safi damprang safi damprang soo seet nga koy déggee di ngay indi ay ay coodu binoo yooyu nga xam ne danga koy joxoñ joxoñ nit soo ko joxoñee guy sax xob yi xob yo wadd yooyu yëpp yooyu yëpp moo tax ma ne moo ci moo moo ci ëpp sëriñ waaw. ba nga jógee Fass la Fass commencé am ay problème ah. waaw déedéet loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu yàlla yàlla yàlla rek. perdre attends loolu moom dégg nga ko da nga jóge Fass Fass commencé ñii aw gauche ñii aw droite. déedéet loolu loolu loolu loolu loolu yàlla yàlla rek la loolu yàlla la yàlla rek la <laughs> yàlla la yàlla rek la. <laughs> doo fekkoon ne xëy na yàlla moo décidé noonu. ne lii nii lay amee. loolu mu amee noonu rek mais loolu loolu dara loolu loolu loolu dara parce que nekkuma fa gaa yaa ngi daan. Hmm? waaw ah ndax Papa Sow jóge na fa yooyu yëpp maa maa maa maa ngi koy dégg waaye nag comme man ba fi mu ne nii mënatuma cee wax euh. te du ma dootu dootuma cee waxati dootuma cee waxati. Gris Bordeaux Balla Gaye nan nga ko gisee. waaw Gris Bordeaux Balla Gaye je crois bien que combat bu neex la nag combat bu neex a neex a neex a neex la parce que Balla euh, mu ngi ci forme mu ngi ci am encadrement bu rëy Gris am na ci encadrement mais ci biir loolu am na lu des donc loolu la war a travailler nag li des moom la war a travailler pour mën a am euh, dara ci Balla Gaye waaw waa li ci des daal moom bari na bari na euh, ay nit yu mu am yokk leen baax na baax na ci ah ak préparation mystique bi parce que Balla kuy bëri moom da ngay am mystique de waaw kuy bëri moom da ngay am mystique soo amul mystique moom soo moytu doo bëri. mais benn kii la rek euh, nan nga gisee Balla Gaye tamit booy ñaa waa Balla Boy booy Balla Boy Niang je crois que euh, ñoom dinañ bëri ji. dinañ bëri ji dinañ bëri ji. parce que ci biir loolu boo Niang su fekkee ne daan na Tapha Tine Balla mënatu koo bañ mënatu koo bañ dañuy bëri te ñoom ñaar seen bëre bëre bu neex la daal boo xam ne ñun ñëpp ñun ñëpp a ngi ko yàkkamti parce que am na ci bëre yoo xam ne comme Modou Lo Ama Baldé nit ñi dañ koy dañ ko yàkkamti waaw ñoo ñoo ñëpp di bëri la daal bëri la bëri eh, loolu kañ bu bul wax ku nekk dina dem fu la foo xam di nga fa dem waaw foo foo xam yee ñoom kañ ñoom ñoom kañ firdu yeek yooyu yëpp ci ci combat bi lañ bokk waaw ci combat bi lañ bokk aha bas ah dafa mel ni war nañoo mën a jeexal de aha père ñoo contentement bu baax a baax di la ñaanal gudd fan ak wér yàlla bàyyi la suñu kanam mais père dafa am loo xam te ni bas nga may ma ko rek ñu gis fan yee amoon na benn kii bu fi xewoon ñu gis ni dafa am koo xamante ni dafa génn def ne Moussa Gningue def benn kii boo xamante ne ñëpp kii woon mais est-ce que kooku noonu ba léegi yow xam nga kan la découvrir waaw waaw waaw ki waaw tàggee woon waaw kooku baal baal naa ko xam naa ko parce que mujjee gi euh, waa waa waa waa kii waa waa police détecté nañ ko ki ko jëkk a ki ko wax mais ci biir loolu dama ne leen ne baal naa baal baal naa baal naa ko rek mais loolu loolu loolu dara nit su ne la tam kii dee na te deewul muy jëwaañi wàññiwul dara loolu dara ah non non non non non xam na boobu nag nee na dafa am émission bu ñu teg ci xaadim sàmba biñ ko tegee ci xaadim sàmba xaadim sàmba di ma di ma di ma di ma jaale sama jabar moom nag mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu jaawaale waaw lii xaalim sàmm ne ñu ngi jaale Moussa Gningue ak mu ne mu ne loolu dee la pour jikko koo génnee rek xam naa loolu la waaw loolu la woon waaw. <laughs> amaat contentement bu baax a baax tey waa équipe Wassare ñëw seet si la parce que ni ma ko waxee suma papa nga suma xarit nga heure bu ma la soxlaa nga ni ma ñëwal te loolu yombul di la ñaanal ko ni ma ko waxee gudd fan ak wér yàlla aar la sàmm la ci barke Seydina Mohamed ñëpp gis nañu làmm nag dafa am dog-dog mais après nag ouverture bu ñëwee combat yu mag yi. dama fii ñëwaat seet si la loolu mooy sa kàddu gu mujj waa sama kàddu gu mujj daal xam naa ne maa ngi lay xaar rek saa yoo ñëwee ñu waxtaan ñu waxtaan ci bëre bu mu mënti nekk nag bu mën a bëre bu bu bu bu mën a nekk nag soo ñëwee ma ma jox li si soo xalaat maa ngi am kantante tam li nga ñëw fii fekk ma fii fekk ma sama kër ànd ak man ñu waxtaan ci affaire làmba di lay wax jërëjëf yal na leen yàlla may gudd fan may leen euh, wërsëg may leen tam ngeen am télé boo xam ne da ngeen di ci mën a euh, ànd ak nit ñi di leen laaj ak ñu ñu leen di wax daal waaw jërëjëf jërëjëf Père Moussa Gningue lañ leen indiloon mu nekk koo xamante ne nee naa leen dañu am contentement ñu waxtaan ak moom parce que tamit beneen yoon incha allah dinañ fi ñëw waxtaan ak moom ci affaire cumbukaay ay eh, affaire mystique loolu kese kese kese la ñuy ñëw waxtaan ak père parce que loolu daf ñoo xaw a ñor ak ngemb tamit père nan lañ koy takkee ba xam ngemb day daan mbër yooyu yëpp ci kàttanu yàlla dinañ ñëw indil leen ko décortiquer leen ko ba mu neex lépp rek pour euh, bëgg ngeen kontaan ah di ko waat bu baax a baax ki nga xamante ni moom mooy sama séeréer bu naaj Basirou Diouf tey nag moom laa nañoo ànd lool daf maa grévoon mais tey nag moom may ñëw dama koo kii quoi dama koo lisi xaar ba indi ko di ko bëggewaat bu baax a baax di bëggee ki nga xamante ni moom mooy Adama ak kàggu ñi nga xamante ni ñoom laay ñoom lay àndal wala ñoom la ñuy àndal ñi ngi leen di remercier bu baax a baax gis na nag ni ngeen jàppee wasaare làmb moo tax loolu moo tax toog waruñu chaque jour ñu ngi dugg ci ruq ruq yeeg ruq ruqaani rien que pour yéen ngeen kontaan bëgg recevoir leen mais Kara Fashion maa ngi koy béggee bu baax a baax moom mi nga xamante ni ah, du tàyyi ci man naan la yow kontaan naa ci yow moom a génnee fii moom Kara waaw defeti ak mëninam rek di ko bu baax a baax sama doom la sama xarit la muy Asuja di ko souhaité joyeux anniversaire naan la maa fi chéri dundal dundal bëgg sa bàjjen wax dëgg yàlla naan la yàlla nga dund dund dund dund ba ma lay maye nga sëy yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ci barke Seydina Mohamed di leen di di jox nag gaay yëpp dig daje ba beneen émission ñu dugal duggaat ci ruq-ruqaan yi indil leen ñeneen ñoo xamante ni dina leen neex jaajëf Basiru Diouf sama séeréer bu nice bi